mahad xikmatul yawmi li tarbiya al islamia wa taalim markaz cheikh Mouhamadou al Mourtada euh, nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ji sunu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul muy waxam yu am njariñ yooyee nga xam ne nii ñun ñoo taxoon mu di ca sonn di ko bind damay wax ne sëñ Tuubaa amutoon jot rek di bind waaye lam wax ne lam anhuma lam yu fi di mosuma jublu lu amul njariñ kon njariñ yi ñun la ko doon defal nañ ko gëstu te jéem koo jariñoo xikmab tey bii nag buñ demee ci al majmuatu suxra di téere ba nga xam ne ne Cheikh Abdoul Ahad daf ca dajale xikma yi Sëriñ Tuubaa ci paas euh, 123 xatu téeméer ak ñaar fukk ak ñett danañ fa fekk wax ji may wax sëñ di ñu wax mm, nit ki ki nga war a toogal ki nga war a jataayool waaw kon nag kenn ku nekk war ngaa xool ki ngay jataayool kumu ndax sëñ def daf caa wax ne mboolem jataay yi kat weesuwut juróom-ñaar koy toogal ku ne kenn la ci juróom-ñaar yi juróom-ñaar ñi moo tax mu ne fa jamihul majalisi sabaa jataay yi yëpp yëpp yëpp yëpp juróom-ñaar lañ ñu ne ko ban ak ban mu ne mujaalasatul wali yi toog ak waliyu nitug yàlla wa mujaalasatul alimi ak toog ak boroom xam-xam wa mujaalasatul xani yi ak toog ak borom alal wa mujaalasatul faqiir yi ak toog ak ku ñàkk mu mujaalasatul jaahili ak toog ak kuréer wa mujaalasatul nisaa yi ak toog ak jigéen mu mujaalasatul sibyaani ak toog ak gone nee na juróom-ñaari jataay yi moo am koo toogal ku ne kenn la ci juróom-ñaar mënu koo génn mun na nag wa kullu man jaalasa waaxidan du yatawalladu minha ash-shay'an koo ci toogal ci ñoom ñii jataay ba ñaari mbir dana ci juddoo dañ ca amee ñaari mbir kon nag ñu déglu kenn ku nekk boo toogee moom ñaari mbir yam lay jural bu dee lu baax ñu def bu dee ab safaan ñu wattandiku mu ne mu jaalasatul wali yi toog ak nitu yàlla ñaar nga ci mën a jëlee muy zuba zuhdu wal baraka dëddu àdduna ak barke yàlla ñu ko yàlla defal loole lu baax la wa mujalasatul alimi toog ak boroom xam-xam ñaar nga ci mën a jëlee muy ahi al ilmu wal xikma muy xam-xam nga cay dolli ko ak xam-xamu xikma bi nga xam ne nii euh, dee su ko jàng ci téere yi te xam-xam bu leer la wa mujalasatul xani yi toog ak boroom alal ñaar nga ci mën a jëlee mooy xira alxirsu war raxaba bari xëymamte fi àdduna ak xir ci àdduna xir ci àdduna ak bari xëymamte fi yàlla musal wa mujaalasatul faqiir yi toog ak ñàkk ñaar nga ci mën a jëlee muy joxe shukrullahi wal sant yàlla ak doylo yàlla na ko yàlla defal loolu lu baax la moo tax yonent bi ku daan toog ak faqiir la ak miskin yi wa mujaalasatul jaahili toog ak aji réer ñaar nga ci mën a jëlee muy nima an nisyaana wal maxsiya fàtte la nga jotoon a xam ak i mooy yàlla na ci yàlla musal mu jaalasatu nisaa toog ak jigéen ñaar nga ci mën a jëlee muy duma abdullu wal maxsiya toroxtaane ak i mooy yàlla musal wa mu jaalasatu sabi yi toog ak gone ñaar nga ci mën a jëlee ci jataay ba muy dola ab dax ko wal laib réew ju bëri ak pomu bëri rek te loolu kon xam na ne amul njëriñ kon nag kenn ku nekk ki ngay toogal na ko xool sëñ Tuubaa day wax sax ci nax ju ne rikkuwaay bu doog ak ku la dul dolli diine ak xel mu rafet ndax wax nañ ne kat nit ki kam yi fréquenté euh, jikkoom rek lay yor maanaam ma ngi ca diine yi kam yi fréquenté sëñ Tuubaa loolu da koy wax ci nax ju wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadal tanal muraad fa axbaru bi annama almaru ala diini xalilihi xadiisan nuqilaa ba tey ci nax daf cee wax ne rikk waay boo nekkee ki nit di leen fréquenté xoolal ña ci gën ngay ànd ak ñoom walla xoolal ka ci gën ngay jaxasook moom ida kunta fi qawmin fa saaxib xiyaaruhum ndax ak mbaax moom bu la teyee rek xoolal ku baax nga koy fréquenté waaye safaan ba itam noonu bu la tëyee xoolal ko safaanu ngay ànd ak moom yàlla incha allah musal ñoo ngi santaat mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp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 wa barakaatu.